marhaban mbas mi yóbbooti na bakkan ci réew mi yaa l'observateur mu ngi xam le ni yaa ci benn fan dong ñaari doomi aadama daal nañ ñàkk seen i bakkan ci Sénégal kenn ki yaa ma ngee faatoo ci l'hôpital principal dëkkoon ci Médina amee woon lu war toll si yaa juróom fukki at ak juróom-ñett keneen ki yaa ministère de la santé yaa moo ko daal di annoncé ni ki démb ci guddi yaa ci hôpital Fann la ñu wax ni yaa fa la ñàkkee bakkanam mu ngi amee woon lu war toll si juróom-ñaar fukki at ak ñeent Dakar Plateau la dëkkoon libération bi le xibaar nañu listu doomi seeni bakkan ci mbas mi yaa daal dina yokkuwa yéene kaayu critique ne yaa fukkeelu doomi aadama daal dina ñàkk bakkanam ci coronavirus bi yaa libération mel ni kuy wax yéene kaay critique ne limba weesu na fukk ndax naka fu mu tolloon yaa Sénégal mu ci fukk benn ci ay doomi aadama yu jot a ñàkk seeni bakkan ci biir coronavirus laas yéene ñuy xamal naan ku faatu fale ci Médina ab njaxare lu rëy la jural njabootam ndaxte kenn ci tàntu ndem si yàlla si yaa bu mu yégee xibaar bu tiis bi daa ilayhi raji'una moom itam fa la jaarale daal di ñàkk bakkenam ñi nga xamante ni dañ leen di ber ngir saytu ndax am amee wuñu doomi jàngoro ji yaa yéeni kay la tribune mu ngi xam ne ni ñu ngee tàmbale bari ah kay ndaxte fii ci dakaaru hôtel yi ñu tànnoon ngir dugal leen fa daanaka fees na ñu dell fu mu toll ni yaa yéeni ka groupe de médias mu ñuy xamal naan dañoo mujje sax daal di jël hôtel bu mag bi lee di King Fahd Palace ngir boole ko ci bërëb yu ñuy bere ñu ñuy saytu seen wér gi yaram am na sax ñu yëkkati xalaat boole campus universitaire bu ndakaaru wa itam jege na lool hôpital Fann waaye yéen kaay tribune mu ngi xam ne ni yaa xalaat bu ni mel bu ñu mooy tuuta kilifa yi duñ ko jëfe déedéet ndaxte ay néeg yu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar waa amuñu ay wanag ci biir di maanaam ay toilette intérieure le soleil moom bokk na ci li ko gën a yitteel di limu ñu daal di wér ci doomu jàngoro ji yaa ñeent fukk ak ñett daat nañu wér ba génn ci bërëb bu fajukaay yi yaa ci bëccëgu démb gi yaa mu di lim boo xamante ni bu ñu dalee faj ak léegi yaa ko am ci benn bës ko ci biir yéen kaay le soleil Yab ci bésu dëmb gi ya Sénégal amaat na juróom-ñetti fukki cas ak juróom-ñeent yu yees ci joojule jamono Sud Quotidien mu ngi xam ne ni ya bërëbu fajukaay yu bëri yu ne fii ci senegal amuñu plateau technique bu baax ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel la ndax ñàkkum juntuwaay ak itam ay spécialiste suñu naatango yi ne ya Ndakaaru moo xaw a ci réew mi ya ndaxte am nañu ay juntuwaay ak personel bu xarañ waaye fu mel ni Saint-Louis ya jafe-jafe yu tar lañ fa daal di nemmeekuwa Sédhiou moom wax yi noppi ya dañoo amut faf ab plateau médical bu war buy yombalal fajkat yi seeni liggéey ya liggéeykatu secteur privé la yéene kayu enquête xëyee ni ki te ya suñu naatangu yi ne ya sonu nañu de ah kay tàyyi nañu damm nañu mënees nañu wax ni sax fu mu toll ni yaa dee nañu ba noppi ndaxte ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ci jamonoy coronavirus bi yaa koppar gu war a jóge ci nguur gi yaa di ndimbal mi war a ñëw ci ñoom moom la ñuy xaar boobu ba léegi te ñu te koo gis enquête ne xaar bi yàgg na de ah yàgg na lool sax Sud Quotidien ne ndimbal lu ñu fas yéene jagleel presse bi yaa ma toll ci benn milliard ak ñeenti ñuy franc CFA waaye fu mu toll nii yaa coow lu rëy moo ci tabbiya ndaxte am na ci yenn ci ay patron de presse yuy ŋàññi doxalinu ministère bi ci lu ñu tëralee sa délégué yaa jàngeen jëf